tay dañu ñëwoon euh fekk ci suñu sàmm yi sàmm yi nga xamne ñoo nekk ci commune Malikunda ah, am lo xamne li président Macky Sall daf leen ko defal moy aliment pour bétail euh lu toll ci 20 tonnes ci aliment pour bétail mu jox leen ko subventionné prix bi bu baaxa baaxa baaxa baax ndax ku nekk xamne na ne saako pour aliment de bétail bi di def 25 kg saako bi mi ngi jar 8000 francs

ndax lu war a jar huit mille nga subventionné ko ba mu jar mille xam nga ne loolu wax dëgg yàlla yërmaande ngi ci vingt tonnes lañu am waaye li am solo li tax ñu ñëw ci ñun bokk ci mooy ku nekk xam na ne deux mille francs ci jamono jii ñu toll nga xam ne mbas dafa sonal ñëpp sàmm ku nekk xam na ne luuma yi ak fi ñu noon di dem di jaay seen jur di jaay soow di jaay leneen di ci am dara ay weer a ngi nii mënuñ ko mbas mi ni mu laalee ñëpp laal leen ñu ne ren nag duñ leen bàyyi koon ngeen jënd saako yi commune bi ci bopam day jël xaalisam duggal ci aliment de bétail bi saako bu nek 2000 francs yi nga xamné mom la ci bay mom la ci sàmm bi waroon a ak 200 francs yu manutention bi commune bi jël lepp en charge pour 20 tonnes donc commune bi tay joxé 1 million 100 000 pour que ben sàmm du jël ben xaalisam diko duggal ci aliment pour bétail bi 20 tonnes kon sàmm commune malikunda dañ ko am gratuitement manam état bi subventionné na 6 000 francs yi commune bi subventionné 2000 francs yi bu ko defee tey sàmm buy ñëw booy ñibbi di nga ñibbiwaale ak sa saaku te fekk fa yoo ci dara loolu mo nekkoon solo dajé bi tay dañuy lancer un appel au ministre de l'élevage parce que pour que quota wu Malicounda bu ko mënee yok prochainement ñu yok ko parce que ku nekk xam na né fi dafa bari ay dëkk sàmm dañoo bari ak jur donc 20 tonnes yi am solo lool waaye buñ ko mënoon a doubler def ko 40 tonnes doon na doon lu baax a baax a baax ci sàmm donc je crois que daal boobu message tay lañ amone di masawu Sénégal yëpp waaye di masawu sàmm yi ne leen daal ah comme ubbi nañu luuma yi nag am nañ yaakaar ne coono jeex na incha allah yàlla ñu delluwaat ci liggéey ba ba nga xam ne lii yëpp mu ñu fàtte ko feebar bi jóge fi Sénégal ñëpp dellu waaw xam nga dafa am ay secteurs yoo xam ne yi feebar bi la leen ak yoo xam ne peut-être ñoo gën a mooy impacté wu ñi impacté wu ku nekk xam ne ne njàngale mi problème la ndax dañoo tëjoon école yi ñoo ngi jàppale jàngalekat yi pour ñu mën a ubbiwaat école yi ci condition ya gën mooy matuwaay yi nekk ci wàllu raxas ci wàllu produit yépp ñu am ko ba mat sëkk ku nekk xam na ne poste de santé yi tamit infirmier yi ñi ci nekk di liggéey condition yi jafe la ñuy liggéey bien que gouvernement bi jàpp na la leen ñun tamit ñu ñëwaat jàpp ci pour seen liggéey boobu gën a yomb. kontaan rek ci président Macky Sall parce que moom jël na aliment bi wàññil ñu ko ba ci 2200 ci mbaaxu monsieur le maire ak ci nga xamante ni maire du Sénégal yëpp président nee na ñu roy ci moom. ak ci bëgg sàmm yi ak ci jàppale sàmm yi moom ci boppam ak xolam bu yaatu mu jël aliment bi jënd ko ci xaalisam presque ci 2200 yi may ko sàmm yi kon loolu moom defuñu lu dul kontaan mais nag ñun duñ ñëguleet parce que ku nekk xam na ne commune Malicounda ñu ñëpp toog xam nañ ne du bëgg lu neex mu le maire mais ñun ñeewuñu benn maire fekk na ñu nekk ci jafe-jafe parce que tey Sénégal dafa mel ni feebaru màgget fépp ay metti ndax mbas mi buñ nee mbas mi nag ku nekk xam na ni pël yi ñoom mbas mi yëg nañ ko ndax dañ doon jël seen jur jiital ko dem daral jaay ko te yàlla àtte na ne loolu amatul parce que luuma yi dañ ko arrêté kon xam nga ne ci ñoom la gën a méttee kon su aliment bi ñëwee nii tey ah maire dugal ci loxoom jënd ko may leen ko gor dafa war a wax ne rek du ne ñamuma du ne suuru ma dafa war a wax ne ñamuma mais ne ñëpp ñam moo tax mu def ko. dañuy wax rek mu dolli ko parce que xam nañ ne li ma la wax la rek gor du ne sañ na wax ne ñamuma mais du wax ne suuru ma bu ko doolee it ñu jël parce que ku ne xam na ne commune Malicounda li fi nekk ci ay sàmm même bu ñu taxawewul ay sàmm ku nekk xam na commune Malicounda ay sàmm lañ parce que séeréer dañuy sàmm pël yi dañuy sàmm joolaay dañuy sàmm olof yi dañuy sàmm ci biir commune bi ku ne xam na ne 20 tonnes aliment la. mais xam naa ne ah ku nekk waaw bu ñu bu ñu yokkalee daal ñu jël